ci sa jëm ju tedd ji nuyo yooyu ak ziyaara yooyu ànd ak cant ak ngërëm lu doy ngërëm loo xam ni ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu nag li ko waral sëriñ bi mooy sa taxawaay bu rafet bi nga am ci biir réew mi ak lépp lu soxal réew mi ñu ñëw nag tey ànd ak délégation bi ànd ak sama soxna ak délégation bi ñu ñëw ndokkale si la ci bés bu màgg bi di bésu xadimul rasul di bésu lislaam di bésu yoon wi du bésu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp ma ñëwaat santati la bu baax na la jërëjëfati ndox sama xol sedd na lool sama xelit yokk na dal bu baax ginnaaw kàddu yu am solo yi nga yëkkati keroog jëmee ko sama jëmm ji keroog ba ngay fàttali taalibe yi ak jullit yi bésu maam borom Touba bii ñu dëgmal ak waajal kàddu woowu lu rëy ci man sëriñ bi maa ngi la koy sante bu baax ndax xam naa yaa ma sa bopp ci say loxo bopp ci tedd yi bëggal ma sa bopp ngir yàlla ak sëñ Touba kon jërëjëfati ci lépp ba tax na faw ma taxawaat yokkoon ci taxaw bi ma taxaw sa ngir jàppale la ci liggéey bu mag bii ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa ci dëkk bu tedd bii ak ci yoon wi yépp taxaw sawet ngir jàppale la ci naal yooyu te bi ñu ci gën a ràññee te xam ne bokk na si li gën a nekk sa xol mooy daara ju mag ji di daara ju kawe ji te université Cheikhul Khadim ñu fas yéene it euh, nekk sawet ci boor boobu ndax liggéey boobu bu sottee dana bëral njëriñ lool lislaam bi bëral njariñ Sénégal ak Afrique yëpp kon loolu it na jàppal ni gouvernement bi dana nekk sa wet si lépp loo xam ne ginnaaw ba nga sumba liggéey bi def ci lu rëy li ci def lépp loo xam ne si sunu wet la danañ ko mottali bu ci yàlla andee man lay santaat sëriñ bi ndax bés yi ñu génn ci waxtaan bi ak ba mbas mi duggee ci réew mi yaa njëkk a jóg wane yoon yëkkati alal ju takku dugal ko ci mbirum paj mi wane yoon joxe ndigal kon yaakaar naa ne li ñuy wax takkal sa masque ngir jëfe ndigalu sëriñ bi lu am njëriñ la ci réew mi te yaakaar naa ne bu ko taalibe yëpp jëfee ñu am magal bu am solo ndax ren ku ne xam na àdduna bi ni mu doxee waaye am na nañu yaakaar ak yàqin ne lépp dina jàll ci jàmm ak salaam kon maa ngi ñaan rek ne ñëpp jëfee ndigal loolee ginnaaw loolu nag xanaa fàttaliwaat rekk sumb yi nga xam ne tam yëkkati woon naa ko ci dëkk bu tedd bi bokk na ci lii di ay yoon rawatina ben bi jëm joge Mbàkke jëm Kayel ko Tuuba Mbul loolu yàlla def na lepp sotti na dañu xaar rek taw bi jeex nawet bi jeex ñu tambali liggéey bobu ci wàllu wër gu wara nit xam nga ni hôpital Matlaboul Fawzeyni liggéey bi sotti na juróom benn milliard ak juróom-ñaar téeméeri million ñu ci def tax na mu nekk tey hôpital bu bees tax waaye nag bi gën a rëy bokk tey ci hôpital yi gën a xarañ ci biir Sénégal mooy bu mag bi ñuy defaram incha allah fii ak juróom benn weer mois de mars la ñu gàttanu ñu ko boo joxee tur bi ñu si war a def danañ dana jël décret bi ci war ñu créé hôpital bu mag boobu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau 3 la ci Sénégal. mooy hôpitaux yi ëpp mandarga kan kenn dootu war a jóge Touba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliard ak ñaar lañ ci def ci suñuy koppar ci hôpital boobule ci wàllu ndox yaakaar naa ni matuwaay yi ñu daan jël ci màggal jëlaat nañ ko defaraat yenn ci ay château d'eau mu nu ndamaatu defaraat yenn ci ay forage waaye nag surtout yokk ndax dëkk bi lu muy màggee mooy laaj at mu ne faaw ñu yokk la ñu ba tax na loolu it gouvernement bi mën si am nañu yàqin ne euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ci wàllu étude te ñu ñëwoon wan la suñu yéene bu bu étude boobu paree danañ mën a ñu waxtaan yow ci wàllu ndox mi. nan nañ ci amee solution boo xam ne dana nekk solution bu yaatu bu yàgg waaye surtout bu joxe ndox mu sell ci dëkk bu tedd bi la. ci courant tam yaakaar naa ni làmp yi gis ngeen ko ci dëkk bi waaye ci Sénégal yëpp la loolu it dinañ ko gën a yaatal bu ci yàlla àndee. Euh, duma faral di wax lu bëri ci réalisation waaye dafay laaj leneen rek ñu fàttali ne. taxawaay bi fi newoon démb tey la gën a dëgër tey la gën a tar si sawet te loolu kanam rek la jëm incha allah kon loolu moo waraloon kàddu yi moo tax damay yeesalaat suñu taalibe si sa yeesalaat it taxawaay bi ak taxawaayu gouvernement bi yëpp ginnaaw bi ma la sant bu baax a baax sant njabootu Cheikh Amadou Bamba bi fi nekk yëpp eh, di borom ñu sama xarit sëñ Abdou fada maa ngi koy tooñ léegi bi muy dugg ak maanaam sëñ Isaaxa si rek ak nag di nuyu sëriñ Basiru Abdul Xaadir bi nga xam ne yaa ngi boole muy yor sa kaddu moom it am liggéey bu rafet bu mu ciy dox ak mboolam jabootu Cheikh Madou Bamba bi teew fii eh, ñun ñëpp ci sa tur maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen andil nuyoo ak ziyaara réew mi ak ndokkalu Sénégal ci bët bu mag bi ñu dégmal di la sàkku ñaan ñaanu réew mi yàlla def fi jàmm yaatal fi jàmm suñu borom it mottali ñu nawet bi nga xam ne am nañ ci yaakaar bu ñëpp muurloo ko mi nga xam ne xéewal yi dana yaatu ci biir Sénégal dañu fàtte lépp lu doon ay jafe-jafe yu fi jotoon jaar kon nag yal na ko yàlla def te boo si ñaanee ñu am si bu baax a baax yaakaar loolu moo doon kàddu ci lu gàtt rek yu ma bëggoon def di joxaat nga xam ne mu soxna Marème mu ngi wax si suñu ndax doo doo jot sama nuyoo